képp koo xam ni bëgg nga président de la république wala nga am cofeel ci moom wala nga nangu réalisation yi mu def ci Sénégal bi ñu ci gën a neex tudde ko la réalisation du siècle muy autoroute Ila Touba nga xam ni képp koo xam ni murit nga wala ngay sénégalais boo xam ni avancement réew mi rek moo la ñor di nga nangu ni président de la république ku mérité deuxième mandat la ci loolu muy ibbi campagne électorale di ko ibbee Mbàkke Bawal te jot na nag ñun waa Touba ñu delloo ko njukkal ndax it lu toll ni quatre cent seize milliards yaatu na euh, kër kilifa diine yi yaatu na mais ba mu joxañee dafa ni ilaatu kon tey ñun ñu ngi woo ñëpp képp koo xam ni da ngaa ne ci dëkk bi ci département bi surtout maa nag Touba bàyyiwuñu benn quartier. woo ñëpp ndax Cheikh Abdou dañuy fàttali digganteem ak président de la république diggante la boo xam ne c'est amité amitié sincère. daf fi bàyyi ñëpp jiital ko ni ko yow laa teg ci seen kanam ci législative yi passé yàlla dogal li mu am dégg na lu nekk waaye président de la république ni mu ko téye moo taxit saa su ne bu amee bis mu am ci taxawaay ñun nag la Cheikh Abdou am ak ñi fi newul ak ñeneen ñi ne ci biti moo tax it bis boobu dañ ci fas yéene def mobilisation boo xam ni ci histoire politique gu département Mbacké particulièrement Touba dootul am daañu wut ay oto daañu wut ay fas lépp loo xam ni danañ ko terale gan bis bobu Cheikh Abdou préparé nako ko ak jàmbaaram yi ak militant yi ak jigéenam yu jambaram yi ndax liñ wone ci Ila Touba bi xam nañ ni Cheikh Abdou Bali Mbacké c'est une valeur ajoutée à l'Alliance pour la République jàpp ni ci 2019 ci la ko nit ñi commencé xamaat ci parti bi ñu nek wala ci mouvance bi ñu nek bi Cheikh Abdou Bali ñëwé muy man ak ñima wër ñi ci ay xar kanam yu bees lañ jeunesse bi mu yor xamusuñu def politique ñi ànd ak moom nekkuñu ay politiciens yoo xam ni pono yoo xam ni dañoo daw ba rusé déedéet ñoo xam ni c'est des hommes de valeur ndax damaa jàpp ni euh, doole président de la république xajul feneen boobu ba léegi sax yow maa ngi doog a dégg xam ndax ñeneen ñu ngi fiy ñëw ñun ki ñu yëg te mu saf ñu ñu safoo ko xam ni moo fiy ñëw mooy président Macky wax naa la ne li liñ indi woon Ila Touba ba lu ko raw la ñu indi. duñ bayyi dara. bu ñu nee ndaw ñi nag xel yi dem ci jàmbaar. di wane kon ñun jeunes yi particulièrement ñi ànd ak Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma bu ñu waxee pare nañ nag mooy ci wàllu préparation ñoo ngi si moo xam ci wàllum euh, communication ñoo ngi wàcc ci ñi nga xamante ni ñooy votants yi waxtaan ak ñoom ci réalisation président Macky Sall parce que lu neex a ci beneen fànn bi mooy ci jour élection yi parce que élection dafa am avant ak durant avant mooy nga dem fexe noo amee ay man leen a jox ay information yoo xamante ni dina leen convaincre ñu voter le président Macky Sall. durant mooy nga ñëw daal di sécuriser élection yi ba li ñu daloon ci législative yi bañ ñu dal. nag ñoo ngi woo ñëpp si meeting bi nga xamante ni mooy am le 3 fii nii ci Mbacké ngir ñu def une forte mobilisation boo xam ne dina raw sax bu Ila Touba parce que boobu mobiliser nañ 254 254 ko xaymaa c'est plus de 7000 personnes te bëgg nañ cee def lu ci raw bëgg nañ mobiliser lu ëpp 10000 personnes. donc ñoo ngi lancé un appel jeunesse bi en particulier ñi ngi jël kaddu tey ci turu Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal liggéey bi mu mel ne yëkkati nañu kaddu tey yoo xam ne saa su ne war nañ di ko yeesal ci kanamam ndax jëfam la liggéeyam la loo xam ne def na ko ci dëkk bi da waral dara waralu ko lu liggéeyal Serigne Touba. nañu xam ne sëriñ bi initiative bi mu am dara lu dul liggéeyal sëriñ bi liggéeyal sëriñ bi nag dafa bëri ay fànn coow li bëri na waaye nañu wàññi wax ji te génne li sëriñ bi di jëf ñu teg ci taabal ji ndax gis nañu ne depuis bi mu duggee ci politique bi ba léegi di jàppale président de la république yematul rek di jàppale ci jàppale président de la république waaye dafa jël ay initiative boppam di ko jëfal Serigne Touba ci dëkk bi loolu nañ ko loqarte génn ko teg teg ko ci taabal ji nit ñi liir ko mm-hmm. mi ngi jël ay ambulance di ko moyen di ko maye ci ay moyen boppam mm-hmm. mi ngi jël ay ndox di ko yóbbu ci quartier yi ci ay moyen boppam mm-hmm. kooku nag bu fekkee dañu laa joxal joxoñ jëfkat war ngaa mën a topp ci ginnaawam ànd ak moom di liggéey ndax ñun xajuñu ci ginnaaw kenn yàgg nañoo nekk Touba di jàppale président de la République kenn mësuñoo gis ci ginnaaw kenn kon bu ñu jëlee suñu xalaat wekk ko ci ginnaaw sëriñ bi jël suñuy jëf wekk ko ci ginnaaw sëriñ bi bëgg a woyofal président de la république liggéeyam te xam ne ñëpp ñoo nekk ay responsable faaw ñu xool responsable boo xam ne jëfkat la waxkat la doxkat la te li muy wax ak li muy jëf bu ñu ko tegee ci taabal ji nit ñi xayma ko ñu jël suñuy engagement wekku ci ginnaaw ànd ak moom ngir jàppale président de la république kon daal tey ñi nga xamal ñëpp ne ni ñu meloon taaw ci législative yi ànd ak sëriñ bi nekk ci ginnaawam ci liggéey bi buy dox buy jëf buy wax jëlal nañu engagement bu boobu ak mboolem bokk yi nga xam ne ànd ànd ànd nañu ko ànd nañu ko ak ñoom nekk ci ginnaw sëriñ bi wan ko résultat bi nga xam ne bëgg na ko ngir jàppale président de la république mu am ndam